mbokku internet suñu gaal 24 mbégteeg bànneex lay daal di doon saa su topp ngeen ñi topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd suñu plateforme bi yanji bi nga xamante nag moom mooy suñu gaal 24 mbégteel nag ak ñi nga xamante a baax a baax ci plateforme bi ngeen ñuy bàyyi xel suñu ay plateforme moo xam YouTube la moo xam Facebook la fu mënta doon suñu gaal 24 mi leen di jaajëfal bu baax a baax ayca ñëw te nañ nekk ci émission bi nga xamante moom lañu dëppee kaay seetlu di émission boo xamante ni dafay faral di dalal ay kilifa wan dafay jamono yi waaye tamit ñu ci waxtaane xew-xew jamono te nag ñu xamante ni dootuñu ko présenté ci plan suñu gal 24 waaye tamit dootu ñu ko présenté ci plateforme sénégalais yi ndax révélation yi nga xamante ne moom dafay faral di def eh, ñu ci bëri dañu koy dippee frère sax de Cheikh Bara Ndiaye ndax ànd beeg kóolu geeg collectif nga xamante ne ñoom dañ koy daal di ànd ñu gën ko xam ci Serigne Cheikhouna Alxuraan Serigne Cheikhouna Alxuraan maa ngi lay nuyu. jërëjëf laaj mooma a'uuzu billahi samil alim basmatan tajaalani llahu biha jaarallah wa mulasiman li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man jaa bil hasanati falahu haslu amsaliha wa man jaa bi sayyiati fala yujziya illa mislaha wa hum la yaslamun ama baad ayyuhal muslimun wal muslimat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw ba ñu sant yàlla suñu borom wa taala ñu ngi julli si bi sallallahu alayhi wa sallam di wax sanru ramadan allazi unzila fi alquran hudan di ñaanal suñu borom def doole def si réew mi jàmm di ñaanal suñu euh, Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom doole ko yàggal tamit ko wér mhm. di nuyu mboolem kilifa si réew mi ak kilifa aada yi mhm. ko ñaanal suñu tamit ko wér mhm. di ñaanal Cheikh Sidil Muxtaar suñu borom doole yegg euh, ay leeram tax ñu si barkeem waaw kay sëñ Mamadou ñu ngi lay fay nuyu bu baax di nuyu waa équipe Sunugal 24 di nuyu ñëpp ba kenn bisimilah. macha allah Aïcha mi ngi noonu Serigne Cheikhouna alxuraan lañ koy lay def mu doon patriote mu mat a mag mag boo xamante wax dëgg fi yàlla kenn dootu ko présenté dañu koy présenté wax dëgg fi génn na wax dëgg fi mbooloo mu bari daat koy ndiraan daat koy topp en tant que patriote en tant que kilifa en tant que koo xamante ni boo xam ne dégg ko nan nga gisee léew ak démb nan la def waaw xanaa am si mbégte bu baax a baax ni si ni si àdd bi ñëpp amee mbégte rek. Mm-hmm. waaw am si mbégte bu baax. Mm-hmm. di si santaat yàlla di sant suñu borom bu baax a baax a baax. Mm-hmm. moom mi nga xam ne lépp lu am rek moom la. waaye moom jàpp moom xëy xëy bàyyi rek jàpp moom bàyyi rek. jàpp moom rek bàyyi rek. dugg moom génn rek incha allahu taala. macha allah waaw te itam yàgg naa la wax fii ni la. Ousmane dana dugg diir bu gàtt waaye su génnee day. Euh, dana yéeme lool. dëgg la. waaw yàgg naa la wax itam jëmm ji nga xam ne mi ngi xeex si jëmmam. muy Macky Sall. lépp lu mu mën a teg lu mu mën a doon. Mhm. lu mu mën a jëfandikoo doole ju mën a doon. Mhm. du tax mu yaay ko du tax mu am si moom la mu bëgg. du tax mu am si moom la mu bëgg. waaw waaw loolu lépp chaque jour yaa ngi koy gis. dëgg la fexe woon nañ ba jàpp ko ba tënk ko dugal ko si mhm. ba léegi nii amuñu ndam sa lañ bëggoon dañu mujj kay di ñaan njekk si moom kay mujj di ko ñaan njekk. jàpp ni tëj si barab. wala bi waa ñu waat di ko njekk foofu la yi fi tolloon fa la tolloon. fa la tolloon fa moo tax euh, moom loolu dañ siy jàngate ni maanaam euh, suñu borom. ku mu aar wala suñu borom ku mu yëkkati jaam mhm. lott na si jim laa suufal jim laa gàllankoor jim laa fakastal ndax su Ousmane Sonko amoon démb daa day gën a yokk fi ne daa gën a yokk dëgg la loolu mooy liberté waaw mhm. Euh, dañ doon faral di dégg say biir rek nga naan euh, Ousmane Sonko nekk bi mu nekk ci kaso bi si la ay mbiram di gën a baax euh, loolu ay lan la woon ay firnde yi loo xamante ne da nga ko xamoon ci ci ci lan ci xam-xam wala da nga ko xamoon ci nii en tant que patriote. waaw moomoo nit yàlla yi fi jaar yëpp. ñu ñu ñu doon dara ñu leen tudd. Mhm. ñu si bëri jaar na si bërëb bii nii. dëgg la waaw. Mhm. te ñu sëpp daanaka ay tuuma moo leen moo leen fi mhm. waaw léegi dama xam ne ñu jëm ko fexeel rek ñu jëm ko làq si bërëb ngir jaay doole mhm. wala ngir ngir si ay pexe loolu ma mhm. ma loolu daanaka sax bu dul seet sax bu dul xam-xam sax da nga war a xam ne loolu du hasard waaw loolu moom naka jekk lu ma xam la yàgg naa ko wax fii itam mhm. waaw euh, daanaka ndeysaan euh, Macky Sall li ko gën a sonal li ko gën a sonal si àddina mooy fexeel gi mu doon fexeel Macky Sall gi mu doon fexeel Ousmane Sonko fexeel gi te yàgg naa la ko wax euh, depuis 2021 ba léegi samay waxtaan yi bari na fi lool dëgg la jëmm jooju nga xam ne mooy jëmmi Ousmane Sonko mhm. yàlla suñu ma da ko melal noo xam ne day mhm. ak tabiam euh, taxawee noo xam ne mhm. képp ko da ngay mel ni ko laal xaru la ko wax moom Ousmane Sonko waaw Macky li ko ëpp li gën a maanaam teg am jafe si at mooy jima gi mu commencé ji fexeel euh, ko fexeel fexeel gi mu doon ndax euh, pexe ya ba mu doog a lépp mooy gis na ni daanaka si opposant yi mu si ëpp doole su ko gàllankoor rek lépp lu mu bëgg si Sénégal dina ko am dina mën a am troisième mandat Mm-hmm. ba léegi gisoo dara daa gën a am problème mais euh, sëñ bi nag ñu ñëw ci wàllu politique nag bu leen fàttali ni tamit politique du rek gars yi ci àll bi ku ci mel ay Amadou Ba ah, ah? ah, def Saint-Louis ak yeneen dëkk yi nga xamante ni ci terrain bi wàcc di politique tamit sëñ bi xanaa moom ba xam nga leen ba yëngu ne élection yi gisagu ma dana am le 24 bi ñëw. ah ko de. gisagoo ko déedéet gisagu ah, maa ngi koy dégg maa ngi dégg euh, la waxoon gis naa ne ko. gisaguma ko amul ko gisagul laa wax lépp loo xam ne wax naa la ko dund lu ma la matoo sama xel. dëgg la lu ma jàpp jarbul ko gis ko mhm. la 24. léegi xëyuma 9h 10h yow. Mhm. gis nit ñi dox jëm sa biir euh, bëri ba kaaya. waaw góoma góoma élection dana am la 24 incha allah. mais lan moo lan moo tax loolu lan la dafa am ay ay mbir yu lalu ci suuf wala lan la. lu ah, waral daa mbir yu lalu ci suuf ay pexe. ay pexe Macky Sall si jëm bopp fi ni prégo élection yi am loolu maa la koy xamal bu baax a baax. moom président Macky Sall. Mhm, pexe yu mu mën fi ni moo ngi koy def ngir euh, bañ a euh, élection yi bañ a am. ah na na nga xamee noonu nii ba fii ma toog nii di wax yow day ba fii ma toog tey lan. waaw parce que tey tey tey la tey la vendredi 15. Mhm. gisuguma élection yi am le 24 ñu demee bu soob yàlla date bee date bee passé la la 25 ba le passé mhm. noonu laa la ko waxoon dëgg la daanaka ban commencé bis ban ne suba la ñuy campagne laa ne moom moom élection doo am insha allahu taala fii laa la ko waxoon ku dem mhm. si euh, émission bi da nga ko da nga ko gis dëgg la nga euh, gis Bassirou Diomaye Faye ànd ak Sonko génn démb mbooloo mi ko topp euh, en tant kilifa bi nga gisee loolu tamit nan la waaw ah, xanaa bëgg ni si ñëpp bëgg na ko bëgg naa Ousmane Sonko bëgg naa hmm. itam képp comme koo xam ne moom la jël wala moom la àndal dëgg la nga xam ne bu doon élection bi doon tey ji tey suba jumaay fay laay woteel insha allahu taala ba ma xamee jumaay fay nee na la mutu ñaari weer tax ma xam ne lépp lu mu dën lu baax la hmm. te doon nit koo xam ne li am ni de meek suñu borom la hmm. meek yàlla la meek yàlla la waaw politicien bu ma bu ma samel euh, histoire Sénégal mosul am te du doo ko gisate mukk li ndimbalu suñu borom la ndimbal suñu borom waaw ndax boo xoolee daanaka ndeysaan nit nit nit nit suñu borom ñëpp a maase génn ànd ak moom bëgg ko di di ko jàppale dëgg la man fii mm-hmm. hmm? teg seen seen Ndakaaru xamuñu fi dañoo war la woon euh, kamil Ousmane Sonko ngir bëgg giñ bëgg Ousmane Sonko te du kenn du ñaar du ñett ñuy ñeent dëgg la loolu mos am si politicien Macky Sall amul loolu yi amul benn politicien boo xam suñu may naa loolu si àddina mhm. lii euh, euh, ay yonente lañ ko daan gis mhm. waaw gëm gi ko nit ñi gëm mhm. loolu yëm na ku nekk yëm na ku ne amul ku mu yëmul si àddina loolu nag meeg suñu borom dong la du dara du lu def si jëmam meegu yàlla la waaw mayu yàlla la Ousmane Sonko génn na tey ma ngay waajal conférence de presse ñu si bari naan dafa war a wàññi conférence de presse yi dafa war a wàññi parce que moo koy jumloo est que jàpp nga ni a lu def loo xam ne maanaam am xelam la ko defee lu mu def rek am na mbooloo mu ñu si ànd ñu si àndal moo tax loolu ñu koy wax moom jàpp naa xanaa est que waa waa liggéey ñoo wax loolu rek te tam boo nekkoon nekkee si biir lu yàgg lu mat ay parce que huit huit mois neuf mois ñu tëj ñu ko mu génn yoon hmm. la mu daal di génn maanaam leeral xel askan wi wax leen lu mën nekk seen xel loolu tamit lu mënta ñàkk la hmm. loolu moom mënta ñàkk nu mënta ñàkk. Mhm. Mhm. Euh, ñu bari nag dañuy wax nag sëñ bi démb mbooloo mi génn nañu waaye mbooloo mi ko topp démb ñu si bari du man samay wax mais ñu ne ñoo ay xale yu amul carte euh, gis ni yow lii mbooloo mi wax dëgg fa yàlla euh, mooy c'est-à-dire que bëgg yàllaa koy def. ci mhm. doomu aadama bi. boo déggee léegi faral gars yi wax di loolu ci kaddu yi naan mbooloo mi xale yi ko topp ak nangam ak nangam maanaam sëñ Momo li nga ni bëgg yàlla koy def. politique man yàlla dogal na. mbisi mbiri politique musuma ñor. musulaa ñor. musuma yitteel si àddina. déedéet musulaa yitteel. waaw élection yi mu jëm élection présidentielle deux mille quatre yi mu jëm Sénégal. waaw fii ma toll di wax yow. man xamatuma kan laa wataloon. ah ba ma demee ba wote laa sa pare ba wóor na alxuraan ak sama koor gi. c'est-à-dire que mu jëm Sénégal. yaakaar naa bu ñu jógee woon ci 2012 bi ñëw nañ ci xanaa mag ab Macky Sall bi waaw. 2012. lañ mujjee na en tout cas waxtaan waaw. 2012 bu ma juumul. ah 2012 lañ ma mhm. man dem naa wata ji waaye fii ma toog di wax yow kama wata noonu xamatuma ko maa ngi soog a bëgg ab politicien. maa ngi soog a bëgg politicien. waaw te itam que yow. loolu nit yàlla ku nekk da nga a bëgg ndax la ko ragal yàlla ku sell la. Mhm. moom Ousmane Sonko. Mhm. nit ko ragal yàlla jàmm ko te yàlla bu kooku ku am xol bu laab. ku am ko. faaw nga bëgg ko faaw nga la. nitu

Mm-hmm. séentuwuñ ci dara mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy génn seen alal yu bëree bëri mm-hmm. euh, di ko di ko def ay sarax ngir jëm Ousmane Sonko dañuy dañuy dañuy def benn listixaar def benn seet wala def benn dara feeñ rek ñu génn ko def ko alal ju bëri lay doon dëgg la ñu def ko te yàlla tax man mii def naa ko ay yoon yoon dem sama daara ji génn ay sàkk sàkk ay sarax génn ko ngir jëm Ousmane Sonko billahi wal Qur'an azim hmm? bàkk sëñ Touba ngir jëm Ousmane Sonko donc te loolu su ma koy def maanaam cofeel ak mbëggeel laa koy def waaw loolu lu moom loolu du asar du asar loolu nag la ñu xam Mhm. waaw naka dañu xam du hasard masalla suñu seexu naa alxuraan dinañ ñëwaat léegi-léegi ci actualité politique waaye dafa am ci mhm. a ah, la soxla ni xamal naa leen 2024 bii ñu dem na gisuguma élection yi am ah waaw su ma gisee ni dana am dinaa ñëwaat fi tooga fi ne la incha allah dana am waaye fii ma toog ni di wax yow day tey la ajjuma waaw

ndax yàgg naa la wax fii ne la nit ki su xasee woon ba mu seetal ko jëmmam ba noppi mhm. su ko neexee li des si ak dundam mën naa bañ a yittewoo seet mën naa bañ a seet la jàll sa ginnaaw la wëy ak fam toll ak ko mhm. ak lépp loo xam ne moo ko moo mhm. moo téye wërsëgam ak euh, feebar bu nekk yaram la ko sabab la koy gàllankoor la koy dindi lépp dinaa ko xamal ndax moomoo seet dafa doon loo xam ne dafa mënta ñàkk si mbirum ñaan dëgg la euh, ndax euh, lépp lu mën a doon si àddina boo jaaree sa yoon wa doo sonn boo doon def ci dëkk xam yoonu tout droit. Mhm. doo doo doo doo am problème waaye boo dee lambatu di jaar si ñàll yi. Mhm. mën ngaa àgg mën nga bañ a yegg. da ngay tànt sens rek da ngay tànt sens waaw mën naa du ma kuy tànt sens lépp maanaam nit ki su ma woon ba seetal ko jëmmam ba noppi sax mhm. bu fekkee doon na koo xam ne waruma jëflante ak moom si wàllu ñaan du ma jëflante ak moom doon dafa yor ay milliards wala million bu ma ko jox barke alxuraan du ma jot duñu jëflante hmm? loolu ñi may jëflante xam léeg-léeg ma seet ni ba noppi gis ay mbiram yëpp gis tolluwaayam yëpp xamal ko ne ah sa mbir yi de yàlla dugal moom la moom la see taxaw day jooy yëkkat di jooy jooy métti ah barke sëñ Tuubaa di jooy jooy métti ci seet gi ma ne nit dana ma wala wax ma seetal ko kese wax ko tolluwaay wax ko jëmam wax ko léppam ba xam ne dëgg dëgg gis naa ko mhm. ma xamoon ko waaye mënu yàlla ko duglu ko ko mhm. léegi day jaaxle di jooy day jaaxle di jooy yàlla baax na doo lambatu rek xalaa xa la joola ji boo dee fëgg buntu bàyyi rek da nga da nga fëgg buntu boo xam ne amaana fa la sa njëriñ nekk dëgg la waaye seet ma moomoo mm. du ma si morom ku yàlla bind la ma si am du jàng du jàng mhm. ak may la ak may la. waaw. Ah. Mhm. Euh, dañ ma faral di dégg nga naan du ma ne du ma seet damay daal di gis. Mm. Euh, euh, loolu lan la mooy li nga faral di wax sànq mooy maanaam nit ki nga xamante ne da nga wax boo ko démbam wax lii waaye ñëw wax li nga xamante ne peut-être. loolu moom mhm. woo tey jëfante xam nañu loolu bu baax baax a baax xam ne. Mhm. lépp lu leen a jaaxal seen a doon. xalaatuñu xalaatuñu si kenn si loolu sama wax itam. dana xam ne loolu lu la. dëgg la ndax man du ma nit ko neex lépp lu ma wax si àddina soo ko topp xalaakul xal looy gis lay doon boo ko topp ak lu mu mënta metti looy gis lay doon du ma lu hmm. xam yu ma ko nekk si réew mi xam yu ma ko nekk si réew mi li may soxla mooy sa tur ak waaw ndax doo war a boo ma nekk hmm. la bis boobee am na heure mu judd waxtu boobee boo xam ne moo dajoon waxtu juddoom hmm. ndax di nga baax li ma wax man ba ma dool si jàng damaa jàng woon yàgg naa la ko wax de dëgg la fii xam-xam moo fi nekk làmbatuma dara si àddina Mm-hmm. waaw doonte jàng naa nag jàng naa alxuraan ba mokkal ko teel naa mokkal alxuraan loolu tam jàng naa téere xam-xam yi te ñu mm-hmm. bëri bëri jàng naa ko dëgg la waaye nag am na si loo xam ne jagleel suñu borom la jàng alxuraan ba mokkal ko mm-hmm. jàng téere xam-xam a mën a toog kuy am jërutul sax xam nga ku nga xam ne ñu ngi si weeru koor waaw te dana bëri alal ba dana yëpp dana ko yëpp mooy liggéey bi nga xam ne at na nga koy def ci weeru koor su koor gi jeexee mën sëñatuñ ko liggéey sëñatu ko liggéey waaw boo boo gisee koor gi tànk bëri fii mhm. damay bëgg nit ñi jot si ngir mën a jariñu dëgg la ndax liggéey liggéey la boo xam ne doo ko def nit ki mukk mhm. mu dellu ginnaaw wala nga ko def nit ki mukk te nekkul ku ñuy dégg si am am loolu mënta nekk dëgg la bëri na kilifa yoo dégg fii si réew mi ñi bëri bi tur hmm. si diir bu gàtt ñu am lu ñu jeex na liggéey naa leen ko dëgg la waaw hmm. liggéey boobu moomoo hmm. war naa ko si jëmi suñu borom day doo ko def mukk mukk te nekkul ku ñuy si am am te ku ñuy tudd loolu moom mënta nekk moom te koor rek lañ ko lañ koy liggéey moo tax euh, koor gi sama tànk da bëri fii ngir may laayee biir ñi nga xam ne dëgg la euh, yàlla war naa dogal ñu mën a am tawfeex ñu mën a jariñu sama jëmm ji ma taxaw leen moo tax kon képp koo xam ne mhm. yitteel na la soo ñu woowee daan la si taxaw yow wax la yow ngay jaar bañ mën la sa taxaw ndax koor gi rek weer koor lañu koy liggéey a liggéey muy liggéey boobu yi sab bi masalla waaw bopp la boobu ngi wax itam dafa doon loo xam ne mhm. yàgg naa la ko wax bokk na li ma gën a sawar si sama liggéey ndax doomu aadama mhm. da war a farlu ñàkk sa jëm ba nga xam ne dara du mën si sa jëm ji dara ndax léeg-léeg nit ki da daanaka léeg-léeg boo jamono boo xoolee ñu la gën a noonu. Mhm. boo doon rey boo boo reyee say noonu say mbokk jeex ni nga ko war a waxee. waaw boo reyee say boo reyee mbokk jeex. Mhm. waroon sa jëmm. dëgg la waxtu nga war a ñaaw njort sa jëmm bañ si la sa jëmm moo tax wokkub mhm. la. wa maa lihi wa waladihi la yëmu dong si euh, sa sa euh, sa sa sa ak sa njaboot wa waladihi. waaw wa maa lihi wa waladihi sa soxna. ak sa soxna masalan daal li ki nga xam ne am na wokkub lam Euh, soxnaam mën naa bañ a takk galaaj mhm. doomam muy mhm. ak njabootam mën naa bañ a takk galaaj mhm. moo xam dafa ab société wala dafa am magasin lu mën doon bu ko mën na saa a def dara te dana aaru kenn a yàq dëgg moo tax dafa doon loo solo loolu sekkara la boo xam ma ko joxoon yàgg naa ko wax man samay at bëreegul waaye damaa taxoo taxoo ak ay mag dëgg la lépp sama dund ay mag yu am téeméer at laa daan taxawul moo tax yàlla dafa dogal fii moom xam-xam fi nekk moom xam-xam moo fi nekk waaye du xam-xam gone doon te jëmi jëna jëmi gone la loolu nag dañu koy bu la ko sabab mooy ban ganee jamono ba léegi mhm. euh, yàlla dogal na dañoo yaafusut benn yoon nag dëgg la suñu kilifa jaarale nañ fa ñu war a jaarale mhm. waaye nag ba ñu fi jaarale tamit yaafusuñu dëgg la góorgóorlu nañu ànd ak mhm. euh, ndimbal suñu borom nag ndimbal suñu borom tabaarakallaa ndax lépp lu am rek si jàmm bi dafa sox suñu borom soog mën a jàppandi dëgg la kon nag alhamdulilahi rabbil alamin masha Allah waaw aja mi ngi noonu balaa muy euh, ñëwaat daanaka ñi nga xam dañ may woo jot gi di xaw a jafe. waaw sëñ bi loolu laa si loolu laa bëgg naa naqaree jot sëñ bi waaw moom loolu moom waxtaan ah, ah. man aw ma secrétaire aw ma secrétaire aw ma kuy wuy samay téléphone téléphone yi li muy bëri bëri kenn hmm? ma xësee ba jàpp ab liggéey duutuma jot téléphone man damaa fonk yite jaam hmm. ñi léeg-léeg dinaa tëju lu mat weeru yàlla nekk si kenn nit di ko taxaw si wàllu ñaan kenn nit dong ci kenn nit kenn nit waaw sëñ bi kooku est-ce dina fay lu ko jar. man su ma xasee su ma xesee man moomoo. Mhm. maanaam man ma jëfandikoo nit ki maanaam ajuwul si mu yor ajuwul si mu ñàkk yor dara. Mm. nit na maa woo mën na maa yor lu jeex du ma am envie jëfandikoo ak moom mën na maa yor lu ñàkk dara ma taxaw ko. dëgg la ma taxaw ko ndax yaa may dégg. maa ngi dégg bu baax. mooy. Mhm. bul tay wooteel yàlla mën naa dogal sa si nekk ma taxaw lan. dëgg la man sama man li may def yi yow laa koy defee. dëgg la ajuwul si ku yor dara ajuwul si ko ñàkk yor dara Mhm. léeg-léeg ñi may jëflante ñi may seetaan am na ci xam nañ li may wax nit dana ma yor dara ma taxaw ko ba ay mbiram baax mu jox ma loolu jeex si àddina boobu na alxuraan dëgg mhm. euh, mhm. ta yomb ni na la ndax jot na téléphone rek njariñ la loolu a itam doo jot téléphone am na ñoo xam ne ñi nga sama numéro la lu ma ñaari at wala ñetti at wala atum chaque jour suñu ma gisee ma def IMSA daan ma wax jot ñooñu nañ jàpp ne seen aajo daan nu mu fa jóg fii rek wala àpp balaa jotugut dëgg léegi itam nit ni ma man na sëñ bi ñaaraata yi ne seetaan waaye booba léegi mën maa lay woo mën maa fi jot la tey ji la yàlla dogal ma laa mën laa jot téléphone man kon naa da xam ni euh, suñu jëflante mm-hmm. après bi day soog a jot Mhm. loolu nag du man mbiri suñu borom la masha Allah ndax fi ne nii moomoo mhm. ku sa aajo nu mu tafaju moom doo ma jot téléphone moom loolu moom na ko na ne dafa ma jaaxal ci euh, bi nga dalee yëngu ci ñaan mhm. hmm? dugg si benn message liir ko tontu ko hmm, nga xam ne kooku nam suñu borom nam mën na koo dimbali xaw ma sax tontu ma fi ne mi ngi ni quatre trois cent onze yaa gis nii dëgg la gis nga ko. 4300. Mhm. 11 message waaw. dëgg la léeg-léeg damay toog ñu yàgg ma nii hmm. ne dawal ñu ne ma xam ne tax a sant ak moom. waaw kii a dimbali la. nar a waaw. Mhm. ndax moom li may def nii dafa maa yitteel dafa ñor de lii mooy sama métier xam nga loolu laa def métier si àddina. dëgg la ndax lii leen ma yàlla nattoo jàngi xam-xam mhm. ba suñu borom dimbali ma mhm. suñu borom dogal itam ma loo doon mhm. moo tax a euh, la di jaar fa ma war a jaar sabablu waate naa kese sama fat baax sababa di sabablu nag bu baax a a mhm. euh, ko si alxuraanu karim maa farat naa fitamin shay'in alxuraan boobu dara lépp gis bi moom moom alxuraan boobu dara amul lu a wa rahma dara boobu ko te yàlla dañu si dimbali ba ñu am si ak gindeeku am si ab tawfeex nag. Mm-hmm. waaw loolu am si tawfeex. macha na dafa am loo xamante ni euh, faaw ma daal la koy laaj parce que man moom yàgg naa fee dalal Mara waaye léeg-léeg mu romb ci TikTok ñu taf benn Mara ni Mara bi dóorkat la Mara bi moytu leen ko yow bi nga juddoo ba ni nga toll nii ci ñaan nga nekk te li ma si jaaxal kenn mosulaa taf kenn mosulaa porte plainte mosoo tuxu mosoo changé numéro. Euh, loolu lan la liggéey bi foo ko teg da ko teg ci gëm yàlla. ak bëgg ba ba juddoo moom uuf tudd ma tudd ma ko te ko kenn yëbu ko dëgg la dund na dund na ba génn àddina mm-hmm. te nit yëbu ko dëgg la man nag du ma nangu nit ku yàpp sañ sin waat ka jàll sama jëmm masha Allah dama wax dama ko wax dañ ma daan wax na ba may nekk tu tànk mm-hmm. maanaam dañ ma daan wax ni gone gi dee daa ma daan wax mm. loo xam ne fonk sama jëmm li tax ma fonk sama jëmm mooy alxuraan ji si nekk moom laay waggar dëgg la xam nga baax li ma xam maa ngi dégg baax li nga maanaam tax mu fonk sama jëmm mooy mhm. fonk alxuraan ji ne sama jëmm moo tax mu ma daan wax dama dama dama dama bëgg sama jëmm dama bëgg àddina mhm. loolu laa leen daan tontu ma bëgg bëgg jëmm ji nag mooy alxuraan ji nekk ci yow alxuraan ji laay wagar mhm. waaw waaye loolu doo man amuma caaxaan loolu ku ko xam xam ko daanaka moo tax léegi-léegi sax ñi léegi ñu naan suñu daa naqar deret naqaru deret de dëgg da du neex dafa neex suñu nopp dëgg am na ñoo xam ne man bëgguñu ku leen wax dëgg ku leen tapp ku leen tappale ak ku leen wax lu dëgg lañ bëgg man nag dara jëloon si àddina du alal du dara dëgg la ndax ndaw la waaye suñu bët sutura loolu xam nga si dara dëgg la waaw mhm. dara fokk sama bët dëgg la dara yitteelu ma itam lu dul jub ak jubal rek dëgg la ku si nekk ñu mën a ànd waaye ku si nekk nag moom nga jaar ni ma jaar nee rek dëgg la insha allahu rabbi yi mu ngi ñaan de ba léegi ngi ñaan de yaakaar naa ñeent fan si ginnaaw rek këram laa añee ñaar fan yi si koor gi mm-hmm. fekk dafa ay gan ñu ñu koy xaar. ñu mhm. taxaw. Mhm. waaye nag loolu moom soo waaram la soo am la te politique nekkul aram. Mhm. aramu di. aramu maanaam politique bu njëkk dañu ñëkk Cheikh Lom rek jàpp ko lu aram waaye politique aram aramut moomoo. sans débat si ni ñu koy defee rek. dëgg la. wax euh, wax wax lu wax lu dëgg daal moo aram ak lu si lu mën a doon nag si lépp la aram nag. dëgg la dégg bu baax baax. waaye dëgg baax li nga waaye nag euh, Baara donte gone la waaye jàmbaar la. ndax mbir mii nga xam ni euh, mooy mbirum projet Pastef bi mhm. am na gon yu bëri bëri yàlla ko la si moom lañ gindee koo dëgg la mag ñu bëri bëri si moom lañ gindee koo mhm. ndax suñu borom moomoo mhm. saa yu la fi ni baara suñ baara euh, bànqaas si yenn bànqaas si woon a ñàkk dëgg la ndax bëri na suñu bëree bëri ginnaaw yàlla euh, am xelam ak um xalaatam ak ay ay kaddoom moo leen si dugal moo leen leeral lu bëree bëri analyse yi mu doon def ndax ko ko xam baara xam ne waxut ngir bëgg lu mu am Mhm. baara ba muy xam Ousmane Sonko këram am na ñaari kër ñetti kër am na ami oto mhm. yor lépp lu nit di am si àddina doo ko génn def li muy def kon nag man na maa wax si moom dëgg la nii la ko suñu borom mu samela si àddina moom dafa bañ nit ñi jaay doole noonu la ko yàlla bindee Mm-hmm. mën naa ramun ñaar ñi xeex fee mm-hmm. mën naa ñëw jënd xeex ba xeex ak euh, jënd ko noonu la yàlla am ñoo xam bañkat lañ bañkat dëgg la maanaam moom fi nii noonu la yàlla fi nii ne lii muy def nii amul lu si bëgg si àdduna loolu mën naa ko si alxuraan mm-hmm. amul lu si bëgg amul lu mu si séntu ndax dégg baax li ma la maanaam moom mën naa sonn si mbiri jàmbur ay at

yow bokk na ci li nga gën a yàpp ci sa liggéey daal damaa jàpp ni itam réew mi ñu nekk di Sénégal man rek maa fi mën a nopp muy jàpp ndax li tax ma xëy soo mhm. na dëgg la léegi soo ma waxee loolu boobu ay xam ne que li nga wax lu am la man damay li ma def damay si am fierté mhm. ndax damay bëgg du bëgg nit di doy lool ñaan mhm. ndax euh, ki gën a maanaam ki a ki gën a doy lool

naar ak leneen ak wolof. Mhm. ak may laa si am waaye nag balaa masaa sóobu itam faaw ma xool ba noppi. Mhm. waaw bu dee li nga dugg masalan bu dee mm, am moom mu am soxna wala keneen ku am soxnaam seen diggante amutug ne mënu la mu mhm. wala jigéen ju am borom kër amut maanaam la bëgg si borom këram dëgg-dëgg dinaa ko jox loo xam ko waxtu ko jëfandikoo balaa def benn critère na ba dut naqareeti hmm? bu dee góor gi noonu kasaak dëkk noonu hmm? waaw ci wàllum nopp bi wàllum nopp waaw bu am bu xasee ba jëfandikoo ñaar ah. ñu sëy ñaari waay yi dañ jënd waaw moo xam góor gi ñëw si man dama mm. sama soxna si kër sëñ dama am lu ma bëgg si moom waaw wala itam nga woo dama sama soxna si daa dem balaa ma 24 kër gi bu si biir sëy boobu bis bu ñëwee ba ma jox ko la ma koy jox mu jëfandikoo ko mm. ànd ak borom këram mm. balaa waxtu waa dellu si si jàmm ko xarit bu dee jigéen joo xam ni itam masalan dafa am rab wala mu tam euh, jëkkër mu tam borom kër waaw suñu waay dana ko dimbali dana daal di am borom kër leetatu hmm? waaw ndax di hmm. ko ñu nekk lu yàgg ñu xëy xëy seen diggante bëggatul mu nekk mu hmm. da koy dëcc ku ñëw rek daal dem wala ku mu bëgganteel ba am si yaakaar mu xëy xëy daal di koy bàyyi woon ko ginnaaw loolu ku kan daal boo ñëwee ma ma dindi ko si bis bi nga dindi ko ci bis bi am na xeeti liggéey yoo xam ne moom teeraatee laa ko si bis bi laa koy dindi Hmm? waaw ak lu mel ne xala. takk xale yooyu waaw. ndax léeg-léeg nit danaat fas soxna. waaw nekk moom ñett fan ñeent fan ba semaine yàlla ba weer sax am naa gis naa ko. Hmm. dara du mën a du mën si moom du ko mën soxna si bis bi ñu ma woowee rek si bis ba loolu day daal day daal di moom si bis amul sax ma dem naan ga ak nangam nangam loolu moom xam-xam bu la la loolu moom hmm. ngi mi ngi tudd sëñ Touba Touré macha Mhm. am na am ba muy génn àdduna am na téeméer at ak fukk ak ñaar yaakaar naa man ba may xamante ak moom rek. waaw ah. matal na téeméer at cent ans. Hmm? waaw moom góor googu koy xam. secret bii moom ma ko joxoon ndax dafa doon ba ay bëtam nii ba dong def maanaam dong mooy nii doo mën a bind. Hmm. dafa ma ko daan liggéeyloo. Hmm. dafa ma ko daan liggéeyloo ma ko defal. dafa ko doon liggéeyloo. waaw maam nit fu ne la daan jóge si àdduna bi di ñëw si këram. ngir mu leen tekk xala moo tax xala suñu moomoo. képp kum gaar boo ma woo a si bis bi daan ci bët loo neexee bul fayagul moom toogal di ba déglu ba ma def li may def noppi. nga doog a fay incha allahu taala. sëñ bi loolu na waar xam-xam la rek. ah. <laughs> ah moo tax mënu. ku ne xam-xam daa am loolu ku ne liggéey daa am dala jàpp rek dëgg la de moo tax nopp googu moom yàlla dafa dogal ko waxee léegi rek mhm. bëri na sëriñ soo xam ne sax dama leen si taxaw ndax mhm. mhm. leen dara si suuf waaw ne ma suñ bi kat sama euh, taalib bi sama wëlër bi kat ndeysaan dañoo yàgg jëflante lool te moo ko fonk lool te dama daa am njariñ sama jëmm ci dëgg la te lii moom a dis ni kat rus naa muy bañ jàppandi Mhm. ma dimbali ko taxaw ko mu am la bëgg loolu waxtu bu nekk macha allah sëriñ si ñëw daj ma si woon loolu am na loo si xam macha bu baax am na loo si xam bëri na sëriñ yoo xam ne sama dem sa si laa jàngee lasraar si laa jàngee xam-xam ci nopp ndax yàgg naa la ko fi ma toog nii rek mën naa fee euh, maanaam mën naa fee lim mhm. mën naa nopp yu bokkut fi ma toog nii téeméeri nopp yu bokkul te bu ma tudd du ma ko tuddaat te bu ma tudd dama daan yor ay kaye di ko bind si kay si kay eh, ñetti kay ba ñeenti kay yoroon ko si hmm. waaye fii ma xew nii day hmm. amul lu may bind si àddina di ko xool amul ba bind ko ba nas dama ko xool sox ko maas ko ah sëñ bi loolu moom doy na waar secret bi itam lu mën a doon rek secret bi mën a doon hmm. boo nekkati bi ma tëgg fi ma toog ndax day li ko yàgg def rek dëgg la waaw li may def mbir mi fii la nekk rek si bopp bi la nekk tabarakallahu ñoo ngi sant suñu borom bu baax na bu ma sax waaye masala léegi-léegi masala ndeysaan wax li li suñu borom def si yow may gi yàlla def si yow. dëgg la xamal ko doomu aadama yi nga xam ne ndeysaan jaaxle nañu sonn mm-hmm. nañu. Mm-hmm. te bëgg nañoo am ku leen taxaw. Mm-hmm. nga génn wax ñi leer leen gindi leen ñi ma dara am tawfeex. loolu wañu dara. wañu dara waaye ngir pour waxuñu ngir taw loolu moom jomb nañu ko dépassé dépassé nañu ko. macha waaye moomoo. Mm. am na doomu aadama yoo xam ne ndax ñu ngi sonn lool. dëgg la bëgg nañu ku leen taxaw waaye ñimewuñu. boo kenn ndax la ko sabab Mhm. dañoo yaakaar ay ay ay njàqar ak ay tawat dëgg la di am ñuy yaakaar di leen woo ñu leen nax nax yu metti dëgg la lekk seen alal te duñu leen defal dara dëgg la loolu ma sama dina ma dina ko laa gën a soxla liggéeyal sax nit ki nga xam dafa maa woo damaa ñaan la ñaan la ba soxla ba ñaan amatut nga xamante ni maam dem na ba découragé ci wàllub ñaan moo tax léeg-léeg dama koy faral di wax képp koo xam ne maa woo si wàllu wàllum yaram bu diis wala wàllum ak lu mën a doon rek si àddina li lu mu mën a doon waaw su ma la liggéeyee sangat jox la ko nga sangoo ko benn yoon boo sangoo bi si guddi gi yëgoo dara hmm. soo xëyee sang la ko bul ko continuer hmm? loolu waxtoon ko maa ko ci premier jour bi ngay sangoo moo xam da ngaa feebar waaw moo xam da ngaa tëju woon waaw moo xam da am looy lijjanti waaw lu mu mën a doon rek yitte ju mën a doon hmm. nga ñëw ba ma liggéeyee la ma liggéeyal ba noppi ne la am sang gi sangoo ko ña ñetti fan wala ñeenti fan nga song benn fan rek laa la wax de xëy suba yëgoo dara si saw yaram su la neexee bul ko continuer xam ne loolu du la jariñ xam ne du la jariñ waaw ndax la ma la jox xam-xam la dama ko teg fu wér dama mm-hmm. jàpp sa tur mm-hmm. saytu ko xam la gën sa yaram xam la koy doxal mm-hmm. fa mu alxuraan ak yamar àndal moo compté jox ko loolu boo ko la am ñu jàppandi dëgg la amul sax ma dem ta kay amul sax ma dem ta ñëw lépp xam-xam la rek masha allah ayca mi ngi noonu Serigne Cheikhouna alxuraan lañ koy daal di wax mu doon jàmbaar numéro bi nag mi ngi noonu ñu affiché leen moom nag doonatul ku ñuy présenté fii ci suñu gaal 24 waaye tamit doonatul moo tax fa yii ma xawoon a gëj génn. muy lan yan la. garab yi amaat na. sa garab yi. yooyu yi may fekkee xam ko man am yu mun mën a faj dama naan ma ko faj. dëgg la de loolu jabet képp ku am jabet bul ma woo. dëgg la de képp <laughs> waaye du ma faj prostate. waaye doo ko faj. waaye képp ku am ndox ndoxum siti. waaw soo hmm. hmm. ku ma woo boo boo ma woowee incha allah moom am na góor ñu sonal lool. dëgg la am na góor ñoo xam ne ndeysaan euh, seen yëngatu na Mhm. seen néegi say neexut la ko war mooy émérite moo leen sonal dëgg la ndax góor euh, yàgg naa la wax ni la itam mhm. émérite góor mënu ko amale kattan déedéet képp ku la jam émérite di góor mhm. kattanam day manqué ñi day day delloo seen awra wala dañu am amicé wala itam euh, masalan bu demee ba a ànd masalan euh, seen seen soxna seenum xel mi day kii ba daanaka dara du mën a jóg si ñoom am na ñoo xam ne mënoon seen soxna weer si lal duñu yëg ni jigéen la ñu tëddal dañu am aajo loolu nag am na yu ko yenn yu ko war yow mën a nekk rab mhm. mën a nekk ndoxum siti dong mhm. mën a nekk émorite mën a nekk émorite ma si lamatu soo ma wooyee mhm. la seetal ba pare ba xam ba mu leer ni ma dafa la bi soo ma wooyee ma si mi dama am euh, émorite yaa ngi dégg yaa ngi dégg baax dinaa laaj lan nga yëg sa yaram bu ma waxee itam dinaa xool ba noppi xam yan garab nga war a jëfandikoo dëgg la ak traitement bi nga war a jëfandikoo ñaata la war a diire waaye su ma la jox ngay saafara bu sama yàlla incha waaw même ndoxum si itam noonu wàllum kattan itam wàllum kattan hmm. ndax léeg-léeg ñu bëri dalee na jàmbat moom sama woowee euh, dis ma ko hmm. dinaa xool ba xam rab la hmm. wala lu ñu la def la. Mhm. wala itam feebar la yii yëpp da koy joxe. Mhm. waaye bu si mën a doon itam. Mhm. bu yàlla suñu borom namay ñi yow ci xalaat dana saafaro. dana ko yii ma la wax yëpp dara gaaru ko si. waaw waaye dafa bëgg am ak cawarte yokk. maanaam am kattan bu baax daal. waaw kooku gi nga jox ma bés bi guddi gi nga jëfandikoo dana gis yëg njariñ li. Hmm? te amul benn effet secondaire sa bopp di metti nangam garab gu neex la. ah goo xam ne daanaka. Euh, du sunguf du reen du sunguf ay meññeent yàlla yu ñuy jëfandikoo la. Hmm. ay xeeti petit cola laa koy laa ay poobar. ay hmm. jinja maa ngi maa ngi leeral sama. yaa ngi yaa ngi leeral secret bi xam nga yu ñuy jëfandikoo la. dëgg la yu rees la. Uh-huh. waaw nga xam ne fi mu ne nii loolu garab gu neex la. mën nga ko gëm a xëni sax. di ko lekk hmm, rek di ci ñam. waaye bis boo si xabaabee la day moomoo. Ah! guddi googu kër googu dara baanu baanu boo mokkal def si ay mokkam ngeen si mm-hmm. macha am na solo loolu turakal sëñ Cheikhouna alxuraan lañ koy daal di wax mu doon xam-xam euh, mu doon jàmbar la ci wàllu waaye sëñ bi euh, jamono ji dafa amoon ñoo xamante dañoo nekk ci réseau yi di jaay waaye nag euh, Sénégal yëpp daal leen ràññee ku ci mel ni Mami Cobra Mame Ndiaye Savon ay Fanta Mboup ak ñooñu ñu waaye dañ cee gën a tabb ki nga xamante moom mooy Mame Ndiaye Savon benn maara génn ni da wàññi coow li coow li kat baaxul ci moom nangam nangam xam nga waaw ah, ñooñu moom tollu ma leen wax dëgg yàlla amu seen jot. <laughs> mooy sëñ ah, bi maam Ndiaye sama nekkuñ si lu yàlla gërëm lañ nekk baaxut. lañ ah. def muy jaay xeesal. waaw duñ sol lu baax lañ jaay baaxut. tollu ma leen te amu si ñoom lu may wax xanaa dem ba yàlla génn leen ñu bàyyi loolu la ñu nekk dem jàmm yàlla di jaay lu lu jëriñ nit ñi. waaye sëñ bi yaa ngi cay tedd di. déedéet ñooñu amu si ñoom moom bu ma laajee si ñooñu ñii. ah mais man de sama xamoo tollu ma leen am xam naa ko dinaa ko gis si TikTok bi ak internet bi. waaw waaye tollu ma ko amoo jotam tollu ma ko wax dëgg yàlla ñooñu moom moom tollu ma leen taloo leen de am na yenn yu ma gën a jiiteel wax dëgg yàlla Wally Ballago Seck dafa génnee benn son bu daw yaram bu triste mu jaar la ci révélation yi nga xamante ay programme moom sama yoon nekk <laughs> ragal damay dégg neen maa gars yi bu ñu làqatu dañuy si suuf dañuy déglu ay Wally man daal dama déglu musique sama bopp laa xam ñi laa man loolu léer man sama ji man dama déglu musique da déglu musique ba may gone ba léegi musuma hmm. am téléphone bu am benn son musique ah fi sama ñett téléphone yi naa la ko bil nga xool boo si gisee benn son musique rek jëlal may la da déglu musique dama déglu musique ah man daal euh, su dee si laay déglu wala hmm. Abdou Xusayri euh, hmm. wala euh, jàng is bi wala Cheikh Jumbaay ñooñu daal lay déglu ñu ngi déglu waaye dama déglu musique tar yooyu moom bu ma si laajot moom dégg nga ko Wally Ballago Seck xamoo ci moom dara xamoo si moom dara gisoo ci moom dara lu ma la si wax rek si Wally Ballago Seck waxuma dëgg ndax xamoo si moom dara ndax xamoo ci moom dara ji taluma ko lépp lu ma si wax rek hmm. damaa xalaat lu ma neex sama xel wax la ko dëgg la loolu leer na hmm. en tant kilifa nga doon seetkat doon ko xamante ni ba nga daree gis ba léegi wax dëgg fa kenn musulaa var kenn musulaa euh, nii la yaa waxoon lii nangam nangam aadama moo takk na soxna ñu si naan sëy bu euh, nga doon kilifa euh, lan ngay wax ci loolu sama yónnee ko si wax dëgg yàlla waaw sëñ bi xanaa actualité people la say dara si. sama <laughs> yoon si nekk rek. ah. parce <laughs> que yooyu sama yoon nekk si rek yàlla. ah mais Adama takk na sonal loo loolu a yem lan la si def moom sama yoon nekk si. sa yoon nekk si xam euh, euh, la <laughs> noppi tamit. waaw mais noo ko gisee boo xam politique la boo xamante ni pour ñu daal mooy moom moomoo réew moom fi nii mi ngi soxla Sonko moom réew mi Sonko ko moom réew mi Sonko ko moom lii la yàlla dogal wax yàgg naa la wax fii ni la hmm. yàgg naa la wax deux mille vingt quatre hmm. bu sa àggee hmm. réewum Sénégal Ousmane Sonko mooy mooy buum mooy buum bi kàddoom mooy doxal mooy fal mooy folli mooy def lépp yàgg naa la ko loolu deux mille vingt et un laa la ko yàgg wax dëgg la waaw te àgg na si ne ñu ngi si deux mille vingt quatre macha acca am na solo loolu sëñ Cheikh euh, na waxtu daan ne jeex lan ngay daal di tàggatoo comme que yooyu moom nangoo ceex moom xanaa santaat yàlla suñu borom bu baax moom mi ñu toogee xel koor gi te ñu toog ñoo ko doon ànd daaw ren ñu fekk loolu rek jannaa waaw mhm. ñaan suñu borom mhm. nangu lépp lu si jàmm yàlla amiin yaa rabbal aalamiin te ful ko amiin ko si mborom jullit ak euh, jullit yi nga xam ne itam suñ borom di leen a nattu tëral leen ba mënuñoo joxe weeru koor yàlla suñu ba fëgg seen bopp yëkkati leen amiin si barke sàmm Ramadan amiin yaa rabbal ñi nga xam ne itam caabi di leen feete ginnaaw moo xam dañoo def dugg fa moo xam dañoo def ay njët dugg fa suñu borom taxaw leen si bi weeru Ramadan wi amiin yaa rabbal amiin dégg nga bu baax a baax yaa ngi itam mhm. mhm. yi nga xam ne itam ñu ngi si bitim réew mhm. dañuy sonn lool dëgg la moomoo

Mhm. loolu dafa métti trop dëgg la waaye ñun ngi di ñaan suñu gën a taxaw amiin gën a yokk seen i xéwal waaye ba nekk si àddina bi tam julli rek nga xam ne weer wi mooy sama weer man macha ndax amul lu dul alxuraanu karim dëgg la waaw kay di wax waa axiru dafa naan alhamdulilah rabbil alamin mhm. yow di la sant bu baax a ndax yow moom sama waay nga dëgg la loolu yàlla na defal du la jëfal jàmm ak tawfeex amiin yaa rabbal salaam wa wa barakatuh xaritu ñi nga xamante ne ñoo nekk extérieur ñooñu koy dañ koy dañ koy gërëm bu baax a baax a baax léegi léegi bu dee live boo xoolee Euh, ñi nekk bitim réew lay daal di doon ñooñu moom ay xaritam lañu moom wax dëgg fa yàlla ndax défendre bi mu leen di moom la bu baax a a baax baax moom la bu jox nag dig daje beneen yoon incha allah ak beneen invité fii suñu Kal 24 jërë ngeen jëf merci beaucoup jaajëf